le maire Yaye Fatou Diagne da porté une plainte qui nga xamné moy assistant communautaire bi bi nga xamné en 2014 lako fekk ci mairie de Ngathie Nawde mu continuer ak mom di liggéey ak mom parce que amna esprit républicain esprit démocratique euh, esprit de bonne gouvernance mu continue ak l'assistant communautaire ñu liguer au sein de la commune mais mbir da mbir mbir mbir am nak Yaye Fatou Diagne dénk ko ay responsabilités yu bari jox ko confiance bi nga xamné mom mo ci pour que Babacar Ndong mën a def liggéeyam waaw ah. Yaay Fatou Diagne loolu la def Babacar pour mu mën a dans un environnement épanoui pour pouvoir être productif parce que nous savons que nous avons besoin de la confiance pour mën a def suñu liggéey ni mu waree donc ah. Babacar Ndong nag am ligg sërax bu mu préparé parce qu'il yéene woon détourner des fonds yoo xam ne dañ ko pour mu destiner à doo xam ne dafa waroon dem ci construction euh, construction au sein de la commune mu jël xaalis boobu parce qu'il yéene dem ak moom euh, euh, tukkeeg moom dem def moom xaalis bi lu neex heureusement comme ligne française, français tout un crime n'est jamais parfait il a laissé des traces Il a commencé à avoir commencé am ay soupçons dès le mois de janvier le 5 janvier qu'il a dem plainte Il a porté plainte l'affaire est devant la justice en tant que des républicains vraiment il a ne comme nañ suñu réew justice. nañ dossier est duñ ci mën sori mais li a wax avait porté plainte depuis le 5 janvier à Babacar Ndong pour pour pour faux usage de faux et détournement de deniers publics yon mu ngi def liggéeyam te ñu ngi koy ñaan mu def ko ci ni mu ni mu ni mu waree. di leen wax né bu lolu passé nak MJRC amna na leneen loo xam ñun dañ koy naqarlu ñun le mouvement des jeunes de la Renaissance citoyenne amna lo xamné do ne ko nangu parce que gis nañ fi un soi-disant collectif des jeunes pour la défense des intérêts de ngatch ñuy léral askan bi nga xamné ñom ñoy sétane que collectif bobu non il n'a rien rien je dis qui ressemble à un collectif digne de, son nom pour défendre les intérêts de Ngatch. Défendre les intérêts Ngatch, c'est intérêt beaucoup lañuy défendre. Parce que ce sont des ay politiciens les ay politiciens qui xam ne daje nañ ci terrain bi ñu dóor leen Les journalistes, ay journalistes ay journalistes yoo xam ne amuñ compétence nous ñoo fi nekk di la population de Ngatch di yàq suñu image commune di bëgg également sur également suñu image leader te loolu duñu ko nangu. C'est ko nangu ça soit très clair ñu avons ne nag affaire avec Yaye Fadou Diagne madame le maire il y a une affaire avec nous. ils ont affaire à cette jeunesse cette jeunesse cette jeunesse du MJRC cette jeunesse engagée cette jeunesse consciente républicaine dévouée bëgg réewam te la ba affaire yi maire. aller bi nag daf fi bëri récréation bi dafa jeex képp ko fi waxat ni leneen dit xam ne da nga fi wan baat suñu maire ou suñu leader di nga ko avec la jeunesse du MJRC que les choses soient très claires

muy leer loolu mooy li nga xam ne métti nañu ba ci kanamu yàlla di wax ne collectif boobu noonu seen intérêt bopp la ñuy défendre bu fekkee am na collectif buy défendre intérêt de la commune de na collectif de Ngathie bi fi toog la maire fi toog la ces braves dames ñoom ñooy défendre intérêt commune Ngathie Nawde parce que ñoom ñooy xaar seen tànk tubéy pour développer Ngathie ñoom ñoo rangé pare pour liggéey pour Ngathie avancer mais ñoom lan fi nekkee lan

boo xam ne c'est un candidat boo xam ne dañ ko dóor élection passée amuñ jom nag ñoom parti bu ñëw ñu ànd ak moom waaw Tamsir Bakhoum parti bu ñëw mu ànd ak moom <laughs> parti bu ñëw mu ànd ak moom mais nga xam ne nag amul affaire ak Yaay Fatou Diagne parce que du moromam mais cette jeunesse la amal affaire ñun la amal affaire ñun xam nañ ne moom mooy derrière lii di ci def mbirum politique xam nañ ko waaw ñiy dem ci plateau yi di wax ne ngàcc day sukuraat ñu leen wax ne ngàcc sukuraatul ñoom ñooy sukuraat ñoom ñi nga xam ne am nañ Moussa Fall Thiel mu ñëw ñu ànd ak moom waa yéen askan bi ñu ànd ak ñoom waa wàllu Sénégal ñu ànd ak ñoom taay nag ñëw na xamal ci Macky lañ na xaw fa lañ ne mais ñun soxla ñu leen ci commune bi ngaaj sukuraatul ñoom ñooy sukuraat ñoom ñoo jox lañ leen fi ay poste de responsabilité au sein de la commune ñu lekk xaalis bi loolu na ci média bi wax na ngeen ci def ay enquête ak investigation au sein de la commune loolu am na fi gis nañ ko fi kon ñooñu li ñu war a wax waxuñu ko waaw ñi nga xam ne dañ nekk ay président zone ñu leen fi jox ay fonds yoo xam ne ñu war a jëm ci nawetaan ñu lekk ko yoo xam ne dañ ci newoon avant ñuy dem dañu newoon fii ci Yaay Fatou Diagne ñu def journée de l'arbre ñu jox leen une valeur de plus de six cent mille ba léegi mu jot bilan parce que journée bi musul am